شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل سلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي ودق résidence Khadimou Rassoul tur wi siiw lool ñu miin ko it ci yeneeni tur muy kër Serigne Touba gi ci jumaa ji wala kër mag moom ràññeeku lool ci dëkk bu sell bi di Touba ci kaas bi nga xam ni moo nekkee ci digg kër gi di bërëb bu ñu liggéey ci espace bu yaatu ñu xayma ko ci lu toll ci 15000 mètres carrés am ay bâtiment doon ay dalluwaay ci ay gan nekkit bërëb boo xam ni xalifi général des mourides dina fiy faral di nekk ñu fiy dundal ak waajal événement yu bëree bëri ci yoonu mouride résidence xaadimu rasul kan moo ko taxawal ñan ñoo liggéey bâtiment yi nga xam ne ñoo nekkee ci biir kër gi ak naka lañu koy jariñoo ak saytu gi dal leen ak jàmm ci résidence xaadimu rasul أنيس البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلاة وكل من خدمني أو زارا فنجيه واغفر له أو زارا وكل من أحبني أو مالا إلي برزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما وهب له kër Serigne gi ñu naan résidence Khadimou Rassoul kër Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke moom Serigne Touba la woon. nag nit ki nga xamee ne doomi sëriñtubaa yépp dañoo amoon kër ci li wër jumaa ji. noonu la ko cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikhul Khadim amee woon muy kër gi bi nga xamee ne nag sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne mooy ñetteelu xalifab sëriñ Touba toog na fi te gisit ne e, sëriñ Touba mënta ñàkk kër wala ay kër ci dëkk bi wala ci dëkk yi wala ci réew yi. ci la cheikh Abdul Ahad Mbacke nekkoon troisième xalif général des Mourides sàkkoo ci sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Bassirou. ñu gënoon koo miin ci sëriñ Moustapha Bassirou ngir mu jox ko kër gi mu mën koo def kër sëriñ Touba. mu amee woon ci 1974 jàpp 75. ba loolu amee mu war tàmm woon ci pàkk bi pàkk bi la ñu tàmmoon la tax mu tàmm ko ci nag moo ko ci xam xam naa ñu lañu ci man a xam ci saayir xëy na mooy fi pàkk bi taxawee ñaari dëkk boo dem mm, borom dëkk ba mooy féete fenti ma fi féete fi mu féete jumaay Touba ji. xëy na loolu la ko jublu loolu nag moom moo xam baatin ba lam ci jublu fekk na kër gi it kër sëriñ Bachirum Xaadimu Rasuul la mosoon a doon naka jekk moo ko dëkke woon naka jekk moo ko astafurlah moo ko moomoon euh, waaye yàlla dogal na mosu cee dëkk euh, kon mu nekkoon ci loxo yi njabootu sëñ Bachir loolu taxoon mu waxtaan ci sëñ Moussa Bachir xamal ko ne kër gii la tàmmu ci loolu. gannaaw bu mu xamee it ne ci lu leer ne bu ko ko laajee it du am dara lu mu tontu lu jëfe ndigal li ni nga ko bëggee Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir itam daal di jëfe ndigal li jox sëriñ Abdoul Ahad kër gi fekk na na kër gi bi fi sëñ Bachir jógee nee nañ leen mosu woon a dëkk moo ko moo la mos cee dëkk ak waa këram ak yooyu daan nañ ci ne gannaawam dañ koo miraasoon ay doomam yu lenn ci ay doomam yu jigéen ñoom moomoon fii ñoom lañ ko séddale bi mu euh, biralee donc bëggam ci loolu la ko xamal sëñ Moussa Bassirou sëñ Moussa Bassirou gannaaw bu mu ca juboo ak jigéenam yooye ñu ànd nangul ko loolee jox ko addiya ngir mu def ko kër Serigne Touba tey jii mu ne jamono dana ñëw joo xam nit dana fi nekkal Sëriñ Tuubaa te su boobaa du am kër ci penc mi su boobaa muy këram te loolu si ñëpp laa doxoon ak na tey defe naa Sëriñ Muntaxa mii nga xam ne mooy Xaadimu Rasuul amul kër ci penc mi waaye am na kër ci penc mi ndax kër Sëriñ Tuubaa gi këram ndax moo fi Sëriñ Tuubaa tey. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jot ci kër gi def ko kër Serigne Touba door liggéey bi taxawal fi ay bâtiment yoo xam ni da ko sant ñenn ci jëwriñu yoon wi tàmbalee ko ci Serigne Moustapha Bassirou mi nga xam ni moo ko jox kër gi ndax dafa woo Serigne Moussa Bassirou mi nga xam ne moom la laaj kër gi ba mu jox ko ko ci turu njabootuk Serigne Bassirou gépp ak njabootuk Darul Minane gépp mu sant ko fi bâtiment boo xam ne euh, bâtiment juróomi néeg la ak ñaa saal bu mag ak saal bu ndaw ak euh, ay couloir yoo xam ne ak foo xam ne daal nit mën sa faa waaje euh, yàlla def na it nag euh, ba mu ko defee kër Serigne Touba ma Moustapha ba lu fi njëkk moo ko fi def lu fi njëkk luñ ci mën a ñoom moo ko fi def doonte ñeneen def nañ ci lu bëree bari waaye la jiitu ba ci bâtiment bii ci sama ndeyjoor ni moo ko fi def ak yeneen lañ li ko mën a jëriñoo daal moo fi defoon. soo duggee ci résidence Xaadim Rasoul bi jaaree ci buntu bu mag bi batiment bi nga xam ne moo féetee sa ndeyjoor langue ak kaas bi moom lañ naan bâtiment Serigne ba Bassirou di bâtiment boo xam ne am na ay salle ak i néeg bëri na ay événement yoo xam ne ci yoonu murit ak i ndaje fii lañ koy amalee. batiment bi mu ngi eh, ni ñu la ko mën a waxee ci ni mu tëddee mu ngi mu ngi tëddee ne maanaam daanaka lu baree baree bari ci yoon yi danay amee ci bâtiment bi. loolu mën nañ koo tàmbalee ci maanaam koor gi njàngum koor gi waaw njàngum koor gi Cheikh Mouhamadul Muntaha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di rakk ci Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul bashir bi mu ñëwee ci kër gi dafa tànn bâtiment bi muy salle bu mag bii ñuy defee waxtaan wi di fi amale njàngum koor gi njàngum koor gi mu fi amale ànd kook Hizbut Tarqiyyah ñoom fii la ñuy aménagé ñëw nekk fi diiru weeru koor gi saal bii ñuy nekk di wax fi sëriñ bi di defal lool diiru weeru koor gépp bu rëccee lool it ndaje yu bari ci yoonu murit danañ koy amale fii li ko mel ne que ay réunion yu mag ak ay ay ndaje yu mag ba ci président sëriñ bi recevoir na ko ci saal bi ay yoonu yoon bu weesoo loolu it saal bi am na beneen saal boo xawee mi ngi ci suñu gannaaw xam naa dangeen ko jël ci image yi muy ñaari saal yooyu saal bu mag bi ak bu ndaw bi nekk ci suñu gannaaw amaat ñeenti néeg ak benn saal bu ndaw saal bu ndaw bi Serigne Moussa Mbacke Naël fi lay féete ci koor gi moom it mooy bi féete ci suñu côté càmmoñ liggéey bi daal di muy doxee fii ci bâtiment bi mooy ñun dañu fee teg ngir ñu koy setal di ko di ko sellal jamono bu nekk ba waxtu wu nit ñëwee man fee fekk ak cat ak ak cell loola nag ñun sunu tarxiya la sunu sëriñ ñu digal nañu dem leen ngeen nekk ci bâtiment ba muy seenu tarxiya ñu laxasaayu nag di setal bâtiment bi ci jamono bu nekk ak waxtu wu nekk waaye ñeenti nag yi bu ci nekk am na salle de bain ci biir sa saal yi saal bu mag bi am na salle de bain saal bu ndaw bi am na salle de bain ci ni ko suñu sëriñ liggéeye woon daf ko waajaloon ci ba fu ci nit nekk mën na bañ a gisanteek kaneen ka nekk feneen kenn ku ne néeg ba nga nekk la fa war a nekk lépp nekk na fa saal yi it noonu di Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu fii lay nekk diirub jiitu na safar sëñ Bass buy tàmbali liggéey bi dana jiitu safar waaye fii lay nekk di fi réservoir délégation yi di fi réservoir ministres yi ak mboolem kilifa yi yi nga xayee ñoom la àndal liggéey bi ci màggal bi ñoom ñëpp ku ci ne fii lay ñëw di waxtaan ak ñoom di discuter ak ñoom ba lépp loo xaye war na koo tënk fii ci bâtiment bi lu ci ëpp fii la koy tënkee dana fi amal sax benn CRD bi ñu daan mujj amal ci màggal Tuubaa mu jëm ci wàccaayu màggal gi fii lañ ko daan amalee. ba ci cérémonie yi am na ci yoo xam fii lañ koy amale bu dee ci wàllu daluwaay it màggal gi Cheikh Mouhamadul Bachir ku ne xam na ne bu xëy xëysee ba bisu màggal gi ci guddi sax dana ñëw waaye nag dañ fiy dalal day joxe bâtiment bi ngir ñu gan ñi am fuñ dal muy koy da koy jébbal waa xaddimatul xidma ñi nga xëy ñoo yore ak yi ñu jël bâtiment bi di ko jox gan ñi ñu nekk ci néeg yi ba màggal gi jàll noonu daal lañu ñu nekk fii ci liggéey bi. entretien bâtiment bi dañu koy bàyyi xel bu baax a baax ci jumtukaay bépp boo xam ne war nañ ko yeesal wala soppi ba batiment bi saa su ne muy gën a méngoog jamono. batiment bi am na entretien ndax euh, Serigne Mountakha dafay liggéeyloo Serigne Mame Thierno Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha mu Serigne Bassirou moo ànd ak ñun ci li ñuy wax entretien ci résidence bépp bu dee ci sama côté bâtiment moo ko yore su ma seetloo benn jafe-jafe duñ ko am ndax daf ñu booleeg ñoo xaye ñoo yor seen i liggéey am seen i métier buñ soxlaa tey ci wàllu salle de bain robinet salle de bain bu am problème kooku ngay woo directement au ngay woo seen ceer na waaye kooku ngay woo mu ñëw changer ñu robinet bi bu dee ci côté climatiseur yor nañ seen numéro ko nga xëy dañ koy woo mu ñëw defal ñu entretien ci climatiseur yi ba ci mbooleem loo xëy dañ ko soxla ku ci ne luñ soxla rek am na numéro koo xëy yor nañ ko nga xëy moom la ñu woo mu ñëw defal ñu entretien boobu su paree wax ak sëriñ bi loolu moo amuñ ci benn problème. salle bu mag bi nga xam ne moo nekkee ci bâtiment bi li muy dalal ci gan yenn saay mën nay takku moo tax ñu waajal fii climatisation boo xam ni mate na salle bi ak sonorisation boo xam ne foo mën mënti nekk li ñuy wax moo xam ci biir wala ci biti da ko mën a dégg. salle bi am na sonorisation boo xëyee bu sëriñ bi wax moom lañ koy taalal mu di ko utiliser wu sonorisation bi. dafa am ci biir am ci bitti soo génnee ci bitti am na ay baaful yoo xam ne dañu def foofu am ci biir am ci salle bu ndaw bi encore foo mën a nekk rek ci euh, te nga xayee waxtaan wi moo la yitteel da nga mën a foo mën a toog ci kër gi danga mën a dégg. xam nga salle bi day réservoir mbooloo mu baree bari moo tax ñu programme ci côté climatiseur armoire yii rek ñu ngi ñu ngi fi def cinq armoire ci kaw gi ñu def ci cinq split muy dix nga xay loolu boo ko doon xool ci ay sofo ci ñuy jàng ci wàllu ci salle bi. moo tax salle bi problème mu tàngaay moom du ci koor gi du ci màggal gi duñ amuñu ko benn jafe-jafe boo xëyee salle bi day tàng jamono bu nekk salle bi boo taalee climatiseur yi day dem ba day seddaay bi day ëpp sax ci mbooloo mi nga xëy ñoo fi nekk dañ koy dañ koy dañ koy wàññi ci biir résidence Khadim Rasoul ci bët saalum gi bâtiment bu mag bi nga xam ne moom ma fa nekk moom lañ dëppee bâtiment Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ndax moom moo ko fi liggéey yoon moom Cheikh Abdoul ci boppam itam mu sasoo fi bâtiment boo xam ne étage la. fukki néeg ak juróom la. bâtiment bii moo gën a rëy ci bâtiment yi nekk ci kër Sëñ Touba gi bii nag moom Serigne Abdou Lahad Mbacke Xaadim Rasool yàlla na ko yàlla fayal ci barkeb Sëñ Touba Sëñ Abdou Lahad moo ko fi def. Euh, bâtiment bi bi ko Sëñ Abdou Lahad def fukki néeg la ak juróom Sëñ Abdou Lahad dafa wax ne juróom-ñaari néeg yii de maanaam fasal naa ci murid ñu tëjal leen seen juróom-ñaari bunti sawar ubbi leen seen juróom-ñaari bunti àjjana ëllëg moom li Sëñ Abdou Lahad fasal murid yëpp keroog bi nga xam ne Sëñ Abdou Lahad mi ngi taxawal bâtiment bii architecte bi defaral ko plan bi jox ko ñu ne ko Mbàkke plan bi dafa seer lool moom dañoo waroon a xool beneen boo xam ne muy gën a wayaf Sëñ Abdou Lahad leen ba génn woon a xam li ma liggéeyal Sëñ Tuubaa jaral ñu ne ma ciment bi ak yor a koy ak yor a koy siim liggéey bi door a bu boobaa sama bopp laa njëkk joxe kon Sëñ Abdou gi di naal bâtiment bi lu réer réer la ci fàggoon la ci fàgguloon murid yi te itam Serigne Touba nangul na ko ndax waxoon na ni kër Serigne Touba gii ma taxawal de bala ngeen a xam njariñam tey mu dem ba benn benn doom Serigne Touba di sutur ci kaw suuf. bâtiment yooyu moo fi am ak sàq moo xam ne sax soxna may lañ koy wax muy euh, mbaar mi ci weer yi nga xam ne euh, Serigne euh, Serigne. xabaan moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moo yore daare alxuraan yi ak lépp lu jëm ci njàng mi moo fay féete waxtu woo xam ne am na ay ndaje. bâtiment Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi R plus 1 la ànd ak fukki néeg ak juróom benn bu ci ne am na salle de ak lépp loo xam ne gan war na ko yittewoo. bâtiment bi fukki néeg ak juróom a fi nekk moo nekk ci bâtiment bi ak benn salle bu mag. mooy saalu vitre bii ngay jàkkaarlool néeg yi néeg boo ci dugg du jar ngay génn di dem ca ba ca des ndax liñ soxla ciy néeg lépp am na fa am na toilette am na ay lii néeg bu nekk ñaaree lalañ ci dégg nga lépp luy nekk ci am néeg daal mi ci boo boo duggee du soxla ngay génn di dem fenn. mboolem néeg yi nga xam ne ñoo nekkee ci bile bâtiment ay daluwaay lañ ci mboolem gan yi nga xam ne dañu fiy ñëw rawatina ci jamonoy màggal. màggal gi kër gi bi ko sëñ laa Lahad def loolu la ci façon maanaam mooy gan ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ñëpp bu ndikkee am fun dal bu ndikkee nag ñoom gan ñi kenn ku ci nekk am na ci chambre boo xam ne booy ñëw invitation bi nga indaale numéro chambre bi ngay dal da ciy nekk nga xam ne soo ñëwee rek automatiquement da ngay daal di jawwale ci chambre bi ngay dal soo dikkee itam lépp fan lay fekk ba màggal gi jeex waaw néeg bu ci nekk itam kaamil alxuraan nga fa tege boo xam ne soo soxlaa jàng alxuraan du jar nga koy laaj kenn néeg bu ci nekk loolaan waaw sëriñ Modou Badara jóob noonu it la ko fi sëriñ Abdou Lahad Mbacké santé bâtiment mu liggéey ko fi muy bâtiment bi nga xam ne mi ngi nekkee ci bët saalum kaas bu mag bi moom Cheikh Abdou su woo itam sëñ Modou Badara Diop sant ko bâtiment boo xam ne moom itam euh, juróom ñeenti néeg la akub saal ñu def fa jàkka ndax li tax jàkka ji itam moo di Serigne Mourtada du Cheikhul Khadim da daan dal ci bâtiment boobu te moom ñaare fu mu dal ci jàkkale jullee eh, ca lay fatoo itam loolu moo waraloon bâtiment boobu muy bâtiment Serigne Modou Badar ñu def fa jàkka waqaliyan miyan min almadaini wa kun mujammilan min alfadaili wa zakki lumbi wafdahan rabbi liya fathan mubinan la yura li mithliha ولياب حذاقة ونورا وبسراد يسير المرورا وهب لي ذكر بسكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تدل يا مالكي دليلي sëriñ Mahmadou Ndiobé nekkoon xalifa njabootug sëriñ Massamba Mbacke gi moom it sëriñ Abdoulahad Mbacke moo ko santoon bâtiment bi mu liggéeyoon ko ba mu àgg ci jamono mu nekk bâtiment boo xam ne mi ngi féetee soowu kaas bu mag bi nga xam ne moo nekkee ci diggu kër gi. woo itam sëriñ Mahmadan moom sëriñ ma sàmba ñu gën koo xam ci sëriñ Mahmadan Jobbe sant ko bâtiment boo xam ne juróom-ñeenti néeg la ak saal. bâtiment sëriñ Mahmadan Jobbe bi jot nañ ko yeesalaat ba yokk ci benn étage. sëriñ Modou Ablaye Fall Ndar moom lañ joxoon ndigal li. am na itam restaurant boo xam ne euh, benn niveau la woon waaye bi nga xamee ne ñu ngi koy yeesalaat yeesalaat bu mujj muy bâtiment sëñ Mahmadan bi bi nga xamee ne sëñ bi daa santoon waa kër sëriñ sàmba ab liggéey fee ca kër sëñ Touba gi ci Darul Manaan te te ci jamono jooju liggéey boobu noppeegut te waa kër sëñ ma Massa Mahmadan yi nekkoon ca mu gisit ne euh, war nañoo yeesal fii. muy réfectoire bi muy muy euh, restauration bi restaurant bi ci la woo euh, ci la wax sant ab euh, Modou Ablaye Fall Ndar mu yeesal bâtiment bi nga xam ne moom la fi waa kër Serigne Massamba defoon ci njiitu Serigne Mahamadan ak restaurant bi ñoom nag bi ñu koy yeesal yokk nañ ci beneen niveau mooy dañ ci dolli beneen étage maanaam rez-de-chaussée rek la woon waaye dool nañ ci beneen étage ca kaw muy ñaari lekkukaay yoo xam ne ñaari jëfandikukaay yoo xam ne Euh, gan ñi nga xam ne ñoo ñëw ci kër gi ñu ci ëpp ci barab yooyu la ñuy euh, la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy jëfandikoo wa maskani jaal maskanan mubaraka wa sayran ni sadikan wa nasika adwaaka an tajalahu daara tuqa wal ilmi wa diini wa daara irtiqa wa jannatan li sadikin muridi وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مدمين ومدفعا عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف اتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم bâtiment bi moom la sëriñ Abdoul Ahad Mbacké santoon sëriñ Modou Rokhaya bu Daaru Salaam muy batiment bi nga xam ne fii lay xalif général des Mourides di nekk su ñëwee fii ci résidence Khadimou Rassoul. sëñ Abdou Lahad moo ko moo ko moo ko moo ko santoon ngir mu liggéey ko ci biir loolu batiment bi di di dox di dem mbooleem ko fi nekk xalif général des Mourides <coughs> daan nga fi ñëw daan fi dajak ak mba taalibe sëñ Tuubaa yi muy daayira yi ci jamonoy Sëriñ Saliou. ba ci sëñ Alaaji ci sëriñ Sidil Muxtaar Mbàkke mi fi nekkoon di ñaan suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ci jamonoy sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke lañu ko yeesalaat mu santoon ko sëriñ Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Modou Rokhaya mu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib. maam Cheikh Anta ku ko xam-xam ni ak taalibe moom da ko yor ba mu sëkk teg ci mu doon am murid saalix ba pare teg ci mu doon nit koo xamante si ni suñu borom da koo may da koo may am xel ba pare mu am ay xalaat nga xam ne bâtiment bi boo xoolee mboolem ni liggéey ci bâtiment bi yëpp moom moo moo ko xalaatal boppam ndax bâtiment bi boo xoolee <clears throat> boo xoolee jëmmi bâtiment bi rek dañuy xam ne bâtiment bi melul woon nii. Euh, yokk na yaatuwaay bi yokk na guddaay bi ndax guddaay bi boo xoolee mi ngi toll ci 16 mètres 50 yaatuwaay bi boo xoolee mi ngi toll ci 8 mètres 50 kon xam nga tollul woon noonu euh, auteuru dal bi it daf ko gën a yokkaat ba mu gën a siggi ndax boo xoolee boo duggee ci biir bërëb bi di nga xam ni euh, liggéey na fi liggéey bu am solo sëñ Sidi Moxtaar ci mbaaxam ci oyofam ak bëgg gi bëgg sëñ Cheikh ak yërëm gi ko yërëmoon mu taxoon sax moom moo taxoon sax daf ko waxoon sax ne ko danga koy peintural kii ko na xawoon koo kii rek tuuti waaye ndeysaan sëñ Cheikh Anta ak bëggam ak laabir ak xër gi xër ci sëñ Tuubaa xam ne sëñ Tuubaa war nañ koo war nañ koo mën a defal loo xam ne ku fi dugg da xam ne lii sëñ Tuubaa yelloo na lu ëpp lii waaw bi nga ko waxee sëñ bi sëñ bi bëgg ci lool ndeysaan ñaanal ko ko suñ borom dogal it sëñ bi boole ma ak moom ma ànd ak moom liggéey bi suñ borom dogal ñu liggéey ko ba liggéey bi mucc ay ba mel nii keroog bi nga xamante si nii eh, dem na bay jébbal sëñ bi liggéey bi sëñ Sidi Moxtaar bi mu duggee fii ci biir salle bi dafa mujjoon yéemu sax ci suñ borom ndax bi mu xoolaatee liggéey bi ni mu meloon ak ni mu ko bàyyee woon ak bi mu fi duggaatee ak ni mu melaat liggéey bi daf ko yéem ba keroog bi mu duggee ci biir bi mu toogee rek la mu njëkk a def mooy def nii Fallou Galass Sylla wol ma sëñ Cheikh Anta Mbacké keroog bi mu njëkkee toog la mu njëkk a def mooy dafa téen ci kaw xool xam ne dal bi kat yokkaat nañ ko keroog ndeysaan mi ngi naan ah man de sëñ mii day wax dëgg yàlla yéem na ma na ma lool day wax dëgg yàlla yéem na ma lool daan sëñ Fallou wol ma sëñ Cheikh Anta sëñ di ci lañ wooyee sëñ Cheikh Anta ne ko ah sëñ bi kat bëgg na ci liggéey bi lool te keroog bi mu ñëwaatee ci sëñ bi sax sëñ bi da koo gën a da koo gën a feddilewaat loolu gën koo waxaat na ko liggéey bi da wax dëgg yàlla am pësteef gi mu am rek ak ni ni mu mel nii rek sama xol da cee sedd waa sëñ Fallou yaakaar naa ni eh, boo xoolee bërëb bi ni mu mel nii daan nga fi dugg bu njëkk ba boo xoolee ni mu mel nii da xam ne wuute naag bu njëkk bi waaw yaakaar naa ni xam naa nag da boo duggee ci biir da nga xam liggéey bi ni ni mu mel yëpp ndax boo xoolee sëñ bi sax wutal nañ ko fa wutal nañ ko fa néeg boo xam si néegu boppam la ndax jamono yooyu boo xoolee daanaka aw waajtaay la amoon rek ak néeg su néeg su tuuti waaye ci biir liggéey bi ci xalaatu sëñ Cheikh Euh, defaat na fa beneen bërëb boo xam ne si def na fa néeg bu yaatu boo xam ne si ne sëñ bi dina fa dina fa mën a nekk boo xam ne si ne wuute ak saal bi boo xam ne wuute na ak saal bi ndax booba rek jamono yooyu boo xoolee saal bi rek moo fi nekkoon ci saal saal bu boobu rek moo fi nekkoon ci jamono sëñ Sidi Moxtaar sax ci saal bi sax ci la daan toog waaye nag ci biir liggéey bi sëñ bi liggéeyaat na fi beneen li beneen néeg boo xam ne amaana beneen néeg buñ dolliwaat ci biir gën koo yaatalaat ba nga xam ne seen kilifa gi bu ñëwee dina mën a dugg foofu ci néeg bi man fee def li muy def waaw euh, boo xoolee garage bii nga xamante si ni garage bii nekku fi woon ndax sëñ bi bu mu saan dugg si fii ci biir danaan dugg rek bu mu saan ñëw fii bunt bii ma jàkkaar lool ci la daan jaar booba waaye talibé sëñ Tuubaa yi bëgg giñ bëggoon bëggoon bëgg giñ bëggoon mboolem ki fi nekk ki fi nekk sëñ Tuubaa nga xam ne ndeysaan bu sëñ Sidi Moxtaar mu saan ñëw euh, taalibe yi buñ mu saan buñ ne sëñ baa ngi ñëw rek ñoom ñëpp dañ daan génn bâtiment bi ba pare bàyyi ba sëñ bi jàll ba pare ñoom ñëpp ñu door a dugaat ñu door a duggaat ci biir waaye nag ci biir loolu bi ñu yeesalaatee bi ñu yeesata yeesalaatee liggéey bi suñu mboroom ci xalaatu sëñ Cheikh Anta mu ne sëñ bi war na sa ko war ko fee mën a liggéeyal benn garage boo xamante si nii otom dina dugg ba ci biir te dina mën a wàcc jaar ci buntu boppam dugg ba ci biir saal bi te du jot ak mbooloo mi dara. bâtiment bi boo xoolee ñaari salle ñaari salle la ndax euh, am na salle bu mag mooy salle bi ñu nekk nii ak beneen salle bu ndaw waaw ndax fii ñu toog nii mooy fi lay daayira yi di ndax sëñ bi bu ñëwee fii ñu taxaw nii fii lay toog jàkkaarloog mbooloom mbooloom sëñ Tuubaa mi muy daayira yi waaw bu dee ci biir nag euh, foofa dañ ko faa def ngir bu fa nekkee kilifa yi ak yenn délégation yi ak yenn kilifa yi bu ñu ñëwee mu mën a génn ci néegu boppam mën a woo kilifa yi foofa mën faa toog ak ñoom ngir waxtaan ak ñoom. waaw loolu ñaari saal la boo xoolee am na benn saal bu ndaw bu ne ci biir am na benn euh, saal bu mag bi amaan na benn néeg néeg néeg boo xam ne néegu boppam la. événement yu bëri yuy xew ci yoonu Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba siiru di xalifi général des Mourides fii la koy dundalee ci batiment bi. ba ci màggal Touba yi ak yenn ci ziyaaru daayira yi ak délégation yi. gis nga yu bari xew-xew yu bari yoo xamante ne mi ngi xew ci biir dëkk bi. yoo xam si ne day ñëw di ko dundal fii ci ci di ko dundal fii ci kër gi ndax mboolem màggal yi fi jaar yëpp muy Kazu Rajab Daaru Xudoos ak lu mu mën a doon tey day day ñëw fii dundaloo ko ak Hizbut Tarqiyyah euh, ñu bokk fi nekk fii ci bu nga xam ne diiran guddi yëpp dafay daal di nekk fii ci saal màggal gu ren gi fi la koy dundale incha allah ñett fa yi màggal gi yëpp fi la koy fi la koy def kalaami wa niyaati wa fiili tawajjah ila man kafaani

day méngoog pale boo xam ne njiitu réew mu fi ñëw wala kilifa gu jóge bitim réew te dara jaam mate ko su fi ñëwee ñu dalal ko fa laaj ji li jël engagement ne ko ne ko la defar plan bi waaye bâtiment bi maa koy tabax muy pale bële. pale bi mi ngi féetee ci bët gànnaaru kër gi ci espace bu yaatu ñu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib président yi ak gan yi nga xam ne seen daraja àgg na ci bu ñu fi ñëwee ci fii ci pale bi lañ leen di dalal. mu doon bâtiment boo xam ne tamit. Euh, dañ dem 83 euh, lañ ko fi defoon ci jamono yi Serigne Abdoul Ahad euh, El Hadj Djily Mbaye rek lañ waxoon ne moo ko tabax waaw 83 waaw muy bâtiment boo xam ne mbooleem jiite yi képp ko fi jëm si tuubaa rek sëriñ bi foofu la def muy sa wàccuwaay boo xam ne fi lay dal ba sa waxtu dellu jot nga dellu. mu doon bâtiment boo xam ne tamit méngoon na ak wàccuwaayu njiitu réew ndax lépp loo xam ne euh, lu muy aajo wala am na ci biir bâtiment bi euh, muy chambre ak salon ak euh, dressing ak salle am na salle à am na cuisine am na tamit yeneen chambre yoo xam ne tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak moom euh, mën nañ fa dallu am na tamit ñaari salle yoo xam ne tamit am na ci biir mooy benn grande salle boo xam ne foofu mooy euh, salle de euh, salle d'attente lañ koy wax beneen salle boo xam ne tamit daanaka li ñu naan salon gouverneur lañu koy wax loolu lépp ci biir bâtiment bi la nekk mu doon bâtiment yaatu boo xam ne tamit am na su sol am na su souterrain boo xam ne tamit maanaam ci suuf la nekk boo xam ne am na ñaari néeg am na ay magasin yoo xam ne tamit mbooleen bagage yoo xam ne jëmoon na ci wàllu màggal gi li ci ëpp foofu lañ ko daan denc waaw mu doon espace bu yaatu boo xam ne tamit ni bâtiment bi toll rek euh, cour bi tamit dañ ko defal fii genre euh, bassin boo xam ne jet dañ koy aménager comme ça muy génne ndox mi maanaam di <coughs> defal ko ay décor yoo xam ne daal maanaam euh, taaru lool def ci ay lampes yoo xam ne ay jeux de lumière lay doon mu nekk côté gauche bi ak euh, côté droite bi aménagé nañ ko donc ay fleurs yoo xam ne chaque année dañ koy yeesalaat di ko toppatoo même biir bâtiment bi tamit at mu jot suñ demee ci comme waajtaayu màggal dañ koy yeesalaat ci anam yëpp <clears throat> maanaam ci changer meuble yi fi nekkoon changer climatiseur yi changer lépp loo xam ne rek euh, mi ngi ci biir ci loo xam ne daanaka euh, danañ ko yeesal ngir mu méngoog wàccuwaayu gan gi nga xam ne daanaka moom la fi sëriñ bi di teeru danañ changé salon danañ changé tab yi danañ changé lal yi danañ changé clim yi waaw danañ yokk décor bi tamit ba nga xam ne daanaka lépp loo xam ne tamit luy taara la danañ ko ci dolli yokk ko ci waaw danañ ko pentiraat biir ak biti foo ci aajo karalewaat tamit dañ koy dindi karalewaat ko mu doon karo yoo xam ne tamit dana méngoog mm, wàccaay yi daal wax dëgg yàlla ci lañ nekk nii daanaka ci sànce lañ nekk nii ngir ñiy peinture ñi ngi peinture ñiy karole ñoom ñoom ñi ngi karole ba lépp loo xam ne daal fi mu nekk nii daanaka luy taaral bâtiment bi la luy yokk ab taar fi nekk nii moom daanaka ñëpp a ci biir ci liggéey bi. moom président moom balaa ñëw day fekk lépp lu ci war a dem moom dana fekk moom ñu noppi ci ba xam ne daanaka moom. Euh, day ñëw rek daanañ ko dugg ndax sëñ bi moom euh, du xaar kenn ci leen moom balaa ñëw lépp loo xam ne tey méngoo wàcc waaye boo xam ne daanaka luy taaral la moom danañ ko fi defal ba nga xam ne daanaka moom su ñëwee mën naa ne dugg rek toog sant Cheikh Mountakha di ñaan yàgg fi loolu te wér loolu la ñu waroon a njëkkee jëmm ju baax ji nga xam ne tamit moom la bi dénkoon kër gi nga xam ne daanaka suñu dikk fii ci biir kër gi moom la sabab si jaar mi sëriñ Alaaji Mbàkke moom sëriñ Sayid dafa ñaanal suñu borom dolli ay leeram ndax yar nañu ci toppatoo kër gi ba def nañ ko suñu yitte def nañ ko suñu bëgg-bëgg ba lépp loo xam ne tey fi nekk nii yitte laaj na ko rek fas nañ ko yéenee jox kër gi. kaas bi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci kër sëriñ tubaa gi te nekkee ci digg kër gi sëriñ Abdou Lahad Mbàkke moom moo ko fi liggéeyoon. mu daan fi dalal ay gan am na it ay cérémonie officielle màggal Touba yu bari yoo xam ne. ci kaas bi la ko sëriñ Abdoul Ahad Mbacké amalee. Euh, am na itam kaas euh, bu fi nekk boo xam ne. sëñ Abdou Lahad moo ko fi defoon case boobu bi ko sëñ Abdou Lahad defit dafa waxoon ne quatre-vingt-dix millions lay jar mooy case bi ci sunu ñu jàkkaar lool moom itam euh, sëñ laat moo ko fi euh, defoon euh, muy kaas boo xam ne fi la daan defi cérémonie màggal bu mujj gi màggalu 18 safar gi fi la daan recevoir kilifa yi bu masaan ñëw it ci case boobu lay nekk moom sëñ Abdou ba ci jamono yi sëñ Saliou ba ci jamono yi sëñ Abdou kon case bi mooy case bi ngeen di gis kon noonu la kër gi noonu la kër gi tëddee mboolem bâtiment yi nga xam ne ñoo nekkee ci kër Serigne Touba gi ba ñu noppee ci jamono yeesalaat gi nga xam ne moom lañ njëkk a def ci kër Serigne Touba gi te yeesal kër gi yépp Serigne Saliou Mbacke mi ngi ko santoon Serigne Amdi Khady Fall. Euh, Baye Fall itam ndogu yi nga xam ne moom la ñu indi xalifa général des mourides fii lañ koy indi euh, ci jamonoy Saliou sëñ itam kër gi santoon na sëñ Amdi Khady Fall ngir mu yeesal ko lépp. Euh, ba yeesal bi ñu ko njëkk yeesal gannaaw bu ko sëñ laat euh, defaree ba noppi sant ko jëwriñ jooju ba kenn ku nekk def li nga ci war a def ba noppi yeesal bi ñu ko njëkk a yeesal ci jamono sëñ Saliou sañ am Khady Fall lañ ko santoon moom rek mos yeesal kër gi yëpp. mboolem bâtiment yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci kër Serigne Touba gi benn bu ci nekk am na ci loxo yuñ ko teg ñu yor ko di ko saytu rawatina entretien bi. waaye kër gi yëpp ñu ngi ko dénk Serigne Bassirou ñaan mi mooy bâtiment yi fi nekk bu ci ne am na ñu ko teg ci seen loxo ñooñu itam ñoo yore responsabilité bâtiment ba la jëm ca wàllu setal ga nag dafa am ay daayira yoo xam ne euh, ñoo fi nekk daayira yoo xam ne daayira yi setal lañ euh, mooy bu dee alterné am na daayira bu fi ñëw. bu dee euh, talaata am na ñoo xam ne sëñ maam na mi nga xam ne moom sëñ sëñ Moussa Bassirou mi nga xam ne moo yore wàllu entretien kër yi sëñ Touba yi ak sëñ bi dénk ko itam liggéeyu université bi jël na benn société boo xam ne euh, wàllu nettoyage la ñuy def euh, lu jëm ci wàllu talaata ñoom bis yëpp danañ fa di ñëw waaye teewut daayira yi ma wax muy alterné. ak alxemes ak ajjuma ak dibéer bu ci ne am na daayira yoo xam ne dañuy ñëw fii di ko setal kër Serigne Touba gi ñu naan résidence Khadimou Rassoul ci kilifteefu xalif général des mourides lay nekk ni nga xam ne nag noonu la ko waajuram ya ak magam yu baax ya daan defee cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba siiru di xalif général de mourides dundalaat na bu baax a baax kër mag moom. waaw maanaam sëñ bi kër Serigne Touba gi ci xol bi la nekk waaw kër Serigne gi. ci xolam la nekk ndax fi mu toll nii bu dee jug bu dee jugee këram sax di ñëw sax daf naan leen kaay leen dem ci bërëbu bërëbu liggéeyukaay bi kaay leen ñu dem kaay ñu dem ci bërëbu liggéeyukaay bi kon kër Sëñ gi ci xol bi la ko def moom da koo da koo koo da koo bëgg lool te tey tamit nag da koo da da koy dundal waaw dafa dafa dundalaat dafa dundalaat kër gi ba pare dundalaat penc mi waaw ndax sëñ bi waxuma dara sax waaye bu nekkee ci biir kër gi rek ñi nga xam ne dañoo ne ci biti sax di yëngu di yëngu leneen loo xamante si nii sax da jëm ci doomu aadama ñoom dañ koy yëg. mboolem événement yu mag yi nga xam ne daal yoon wi da koy am Cheikh Mamadou Mountakha fii la koy dundalee eh, ci kër gi. kon nag ñu ngi gën a sant Serigne Touba bu baax di sant Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ne moo nu fàggul lii ñun murid di ñaanal nag Serigne Mountakha Mbacké mii nga xam ne moo fi Serigne Touba. mu yàgg fi loolu te wér te moom doxiinu mag ñi rek lay roy sëñ Muntaxa doxiinu mag ñi rek moo yitteem amul benn yitte bu dul liggéeyal sëñ Tuubaa amul benn yitte bu dul dëgëral pas-pas yi murid ci sëriñ bi ndax xam ne loolu mooy koom ëdd nag ak moom alaxira kon nag ñi ngi sant sëriñ Tuubaa bu baax di sant Cheikh Mamadou Muntaxa sëriñ Tuubaa nag bëri na kër lool fii ci Tuubaa ci biir réew mi ak ca bitim réew waaye bii ñu naan résidence Xaadim Rasuul moo ci gën ràññeeku lépp nag di gis-gis bu sori boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Xaadimu Rasuul nekkoon troisième xalif général des Mourides amoon na ko ndax kër gi bari na lu muy jariñ yoonu murid alimtu yaqinan na mawlaaya kaanani wa anal muqaffama alaaniya yaqdan zilaliya safa شهدت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاتم من إذا كان ثلاث الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر falaahi bi kawni abd rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada mugnin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi